def nañ joxe nañ lépp luñ mën Nigéria équipe bu am doole la euh, tey ñoom ñoo mën xam nga beneen yoon xëy na ñun ñoo leen di mën mais Nigéria équipe bu am doole la tey euh, nañ nañ gën a defaruwaat te xam ne équipe bi leen door équipe bu ndaw. bu yow lan moo mu manqué tey. ah mun naa wax ne perte de balle heure li sonal nañu après nag jigéen ñi ñëwaat nañu parce que tey euh, dem maa ngi koy wax démb ma ni demi finale bu ñu joué danañu arrangé bu ñu perte noonu après ñu ñëwaat tey feeñaan na si match bi. mais xëy na ñaari équipe yi bokkul Nigéria moo ëpp doole Mozambique. loolu loolu laa gis ko ok mais noo noo gisee nag public bu góor bi. public bi ñëw na dañu doon ragal de façon dëkku sport la ak lu fi mën a xew lu ñu mën a wax bu sport commencé ñëpp nekk si lii lu baax la. lu baax la ñun suñu sag la ñun suñuy jeu ak suñuy nawle kenn mënatul wax ni amuñu arena bu baax xam nga lii ñun ñun suñu sag la te dañ ko war a sàmm loolu yàgg naa ko wax. waaw ñu ngi ñaam président mu defaral ñu Marius Ndiaye tamit ñu mën di jouer foofu parce que Marius Ndiaye du loo xam ne luy dee dañ ko war a sàmm xam nga lépp fa la commencé kon nag tey lii ñu ñëpp ñu ngi koy rafetlu quoi xam nga Sénégal yëpp ñëw génn supporter seen seen équipe nga xam ni ñun ñëpp Sénégal moo ñu ñor man Sénégal ak sport bu mu mënti doon muy làmb muy lu mu mënti doon bu nekkee drapeau vert jaune rouge ñu bind Sénégal si kanam man amiin bokk naa quoi ndax Sénégal rek moom intéressé waa yi nee nañ góor gi ne moom képp ku na tey moom xam nga jigéen ñi ñoo aaye fii di coupe du monde am nga <laughs> afro basket la comment man yooyu tey mënuma si wax. waaw tey góor gi amoon tamit amoon tamit tey li ma la wax rek man Sénégal moom intéressé tey ma sañoon lu ñu lu xam nga mënu dem guerre mënu ma jàngale si école xam nga mënu ma dem tool basket laa mën loolu laa mën a jàppale Sénégal.